abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV dal leen ak jàmm mbokki internet yi Macky Sall dafa tas yaakaaru seeni sénégalais yi loole du samay kàddu depuis 2012 ba tey ñuy toog di xaar li nga xam ne moom mooy naataange wantekat France daal di xëddeen nekkat amul lenn lu nga xam ne rek askanu sunu gaal mën nañ koo daal di teg bët kennkat loole lu koy duufal la ci rekk ni nga xam ne noonu la politiciens yi di doxalee ci réew mi di senegal fekk jamono boobu ñu bare bari ñu ngi ci parrainage yi ku nekk nag di yootu jëmale ci sa kanam te kii di président Ousmane Sonko mënta fexe ba participer boobu ba tey gannaaw feuille de parrainage yi nga xam ne rek mu ngi ci guddi gu bët setagul jamono boobu itam ñi ngi wax ay xibaar yoo xam ne rek mu ngay dal di jib foofale ca diwaanu Kaolack di mbir mu doy waar mën nañ ñi léeg ñuy faral di ko dégg ñu koy rumandaat fii ci réew mii di Sénégal am na wala amul lu ci mënti am mooy ne ay xibaar daal dinay jot a jib kënekat gannaaw ba ba ñu daal di nemmeeku ay nit ñoo xam ne rekk dañoo daal di bëggoon a ropp benn néew foofale ca armeel yu Kaolack ndekete yoo néew boobee ci ay xibaar ak góor jigéen la bu fekkente ne am na wala amul lu ci mënti am askanu kawlax dañoo daal di màbbandoo nekkat mbir mi du fi am daldi gantal mbir moomee tax nag ñu daal di koy jël taal ko ca buntu armeel yu Kaolack nekkat ñoom ñooñee sax lañ njëkkoon a jéem moom mooy yóbbu ko foofale ca diwaanu diwaanu Touba ñu gàntaloon leen mbir mi ni mel niki ci guddi gi nag ñu daal di rocceeku ndànk fas yéene koo yóbbu ca armeel yu Kaolack ñi nga xam ne ñoom ñuy ndaw ñi daal di taxaw takku bu baax a baax nekkat duñu seetaan mukk ñuy nax saayal diine ji nga xam ne rek moom moo nekk fii ci réew mi di senegal rawatina nag fee ca diwaanu Kaolack tax nag ñu ne dañ koy daal di taal loolee coow commencé di sa juddu est-ce que nag diine loolee la wax waaw wala déet lu ci mënti